Johnson ak Bébé Diouldé Johnson daw na jël Bébé Diouldé Bébé Diouldé génnee ko ndaysaan ñoom ñaar du yomb Bébé Diouldé dawaat na jëli song ba baaxul ndaysaan fee ñu ngi ci Doudou Sané ak Mamadi daw na jël ko Johnson ak Bébé Diouldé Ndeysaan Bébé Diouldé ak Dieng Son Mamadou Ndiaye ak Ndeysaan Johnson ak Bébé Diouldé ñu ngi noonu ci combat bi Johnson ak Bébé Diouldé Johnson ak Bébé Diouldé Ndeysaan Johnson ak Bébé Diouldé Ndeysaan ngàdd na Bébé mu wàcc jël nañ ko waaw daan nañ ko Johnson daan na Bébé Diouldé ndeysaan daan na ko